waaye garab yu bon yi lée lii lan la le soleil yéene kaay ne en tout ay garab yu bon yoo xam ne day lii kay mësuñu koo jàpp nag la wax ah. waaw parce que xaalis ba day buñ ko xaymaa toll na ci benn milliard ak genn allahu akbar ca ayib la ca Kaolack tribune yéene kaay la duwaanu kër ayib ba ca boppam kon day waaw jàpp bi xam ne ne daal dina ay toni ton la ay faux médicament dama la xaalis ba boo xaymaa la ñu jàpp day ah. 198 mille 740 allahu akbar yéeni kaa yi dee mi jaagi ne dama ne la gis nga médicament yooyee waaw garab yi day ña ngi ko dencoon na ci ay keesu jën yoo xam ne nañ koo congelé ca suuf laas yéeni kaa yi nee na séminaire ba day président Macky Sall daal di nay sàkku nag ca gouvernement ba ca boppam kon ñu daal di baral recrutement bi lée wutal nit ñi waaw le soleil yéeni kaa yi nee na xëyu wutal nit ñi liggéey di wàllum recrutement ba waaw dama ne la lay semaine bii lay commencé nag laa la wax yow ca jamono joojee nga xam ne ñoom Zahra Iyane Thiam waaw di lijjanti xëyu gone yi Dakar Times nee na waaye ICS day waaw daal dinañuy xot lu tolloo juróom-ñeent ci ay société yoo xam ne day boo sàgganee ak juróomi téeméer ci ay doomu aadama yu fay dana ñu ñàkk seenu liggéey la ilaha illallah ah maa la ko wax Alassane Diallo mii directeur moo indi ay coppite te nañuy jox nag autorisation yo wàllum exploitation carrière Silex googe ci commune bu Daaru Xudóos te waxtaanee wuñ ko benn yoon ak ñi nga xam ne kon ñoo fay liggéey di exploitant yi yéen kaa gi ne gis nga kuréel gi nga xam ne kon moo njaboote gaañooñee waaw ña ngay woo président Macky Sall de ngir mu daal di sobeelu tolloo junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xam ne boo sàgg ne danañu ñàkk seenu liggéey ilaha illallah Omar Faye leeral askan wi day ci évidence Sénégal yi waaw nee na scandale la musiba mbaa bakumba boo xam ni day ña nga xam ne ñoom ñoo fay exploité ñoom la ñuy sàkk ca ñoom ton bu ne ñuy fay ñaari téeméer di ko fay indien yi te loolee ñooñu amuñ ci droit njiite leeral askan wi day Omar Faye waaw nee gis nga lii lépp lu njiig directeur général u ICS Alassane Diallo moo njàkk laa la wax te moom Alassane Diallo moomee ba mu retraité kenn xamul kañ la looloy e, a daal di dàq ndax yi nga xam ne ñoo nekk ci république bii retraité nañ bu yàgg yàgg te jamono joo xam ne nag maanaam réew maa ngay mitee fu ne mel ni màggat mu feebar foo laal day miti nag laa la wax Lansana Gagny Sakho day ci réew mi quotidien nekkoon directeur u ONAS waaw nee na Serigne Mbaye Thiam ci boppam kon moo tax mu jóge ca ONAS googee te jamono jooje la Guy Marius Sagna ci libération yéen kaay waaw ne gis nga coowal suuf si nga xam ne moo dox ci diggante Ndengaleer ak waa Sedima Guy Marius Sagna day nee na waa Ndengaleer googee ak Babacar Ngom day dafa ñu dara ñoom ñaar ñëpp nguur gee leen tooñ waaw source ané en tout cas waa jilaax day wax nañu de wax ju doy waar parce que Aliou Faye day porte parole u jilaax googee waaw nee nañ at yi ñu génn ni lé Bassirou Diomaye Faye lu tolloo fanweeri junni la ci kaw taabal ji la ngir ñu organiser conférence de presse aha waaw te Seydi Gassama samedi ji ñu génn ca Ndengaleer fukki junni la ci taabal ji wax nit ñi ne leen continuer leen di xas Babacar Ngom Sedima allahu akbar chef de village su Ndengaleer ko protestataire te ñi du kenn kulul jalgati rek Guy Marius day waaw nee na Babacar Ngom Sedima mi lée deful dara loo xam ne kon lu illégal la maanaam loo xam ne jaarul yoon moog waa Sedima ay victime lañ dañ leen a tooñ Amadou Diagne président UFP ci 24 heures waaw nee gis nga dagg-daggaat yi nga xam ne kon ñu ngi koy dagg-daggaat gox yi day wàllum découpage wala administratif waaw mais nekkul pour politiciens yi lée mais pour askan wi la looloy dëgg de Amadou Diagne yamu ca ndaxte nee na te gis nga dagg a jug a jege gox goxaan yooyee day mais ñu baree bari ci askan wi dañ caa d'accord aha waaw parce que boo jaaree ca kër Njaay loo kële dem ba jam ñaajo romb jaxaay ñàkkurab nduxura askan wa ca boppam kon ña ngay rafetlu mbir mu ni mel nag laa la wax parce nee nañ dañoo tooñoon sàngal kam kële yéeni kaa ne waaye am na ñenn ñoo xam ne day wane nañ seenuk mer nag parce daal nañ kon ay ca Mbambilor jaxaay direetu news de Macky Sall day waaw daal dinay tarasawaat na carte collectivité bopp way samba ca te Macky li ko yóobee lii du dara lu dul ragal ñàkk capital bi la wax kese parce que keroog ba Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñàkkee capital yii am na lu mu def ci seenuk daanu dama ne ndakaaru njaay jël joobu amatul léegi ñetti ville am bu njëkk ba mooy ville de Yoff commune Yoff ca la ne Parcelles Assainies Grand Yoff Ngor Wakaam ak Almadies la ilaha illallah la deuxième ville mooy ville de Grand Dakar commune Grand Dakar ca la ne Biscuiterie Sicap Gueule Tapée Dik Médina Plateau Sicap Mermoz ak Point E eh way Samba yéen i kaay Pape Jogoy fee bi ne ni ville yu mag yu nekk ci biir réew mi tamit day Macky sal dana ko naka dagaa tonde teewul waa këram yi nekk ci Ndakaaru Ndiaye jël joom ña rayante Le Quotidien yéen i kaay ne Mbaye daa dóor Amadou Ba fayu ma ne la xuloo baa nga Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye nee na Amadou Ba defal attention parce que gis nga na fexi ñi ngi ci jege ñaale ñi ngi ci mbokk yi ñi ngi ci àndandoo yi defal attention ci ñi nga xam la ko ci ruq danaa la ko waxaat fi lee Ba waaw ne Mbaye Ndiaye Mbaye doucement rek président dafa maa wóolu def loo ma politique ay mer ak yooyee nag mën ta ñàkk ci wàllum politique de te Mbaye Ndiaye xam naa ni ku bëgg président nga waaye di nga ma may nag ma wuuteeg yow ci cofeel googee nga am ci président <laughs> problème yaa ngay démarrer de Amadou Ba ne ko Mbaye tu vas me permettre de te concurrencer auprès de Macky ñëf alerte yéene kaay ne moom boo bëggee dégg dëgg waaw gëm na Macky te bëgg na Macky box foofu ne waa kër Macky Sall yi ne ca Tambacounda gële ñaa ànd ak Mamadou Kassé ak ñi ànd ak Sidiki Kaba waaw dañ doon xeex xeex bu mité mité nag laa wax libération yéene kaay ne te diwaanu Kaffrine day waaw waa Benno Bokk Yaakaar ak ñañ àndal day dal nañ ca kaw Abdoulaye Wilane de laaste Amadou Diarra maire Pikine Nord transhumé na dem na APR mar di tali maa la ko xam nga Abdoulaye Timbo mi ko doon tàllal loxo yooyee waaw ndekete Amadou Diarra day démb dee pale ci boppam pale ca Macky Sall fa la ndogoo def délégation bu baax ànd ak Abdoulaye nag source aané grève bi nga xam ne waa SAMES day ginnaaw lakk nga amoon ca hôpital Magatte Lô ba Linguère ñi ngi koy amal ni day nee nañ bokkuñ ca grève ba tey te bokkuñ ca ëllëg laa la wax parce que lii nga xam ni kon moom la ñuy dund rek dafa doy sëkk ak barke tey rafetlu nañu tamit taxawaayu ministère de la santé gi ak bagage yi nga xam ne indi nañ ko ca hôpital ba critique yéene kaa ne doyen des juges day gaa ñaa nga ca de kan mooy remplacer kii di Samba Sall ca la gaa yi ne yéene kaa gi ne njaayu terrain yi day ca aéroport Yoff ko compagnie générale a njaayu terrain yooyee baara yëgoo lay saf par parloo <laughs>